lii nga xam ne leeral ni li nga xam ne loolu la sëñ bi bëgg loolu la sëñ bi bëgg dafa wax ne ndaje dafa wax ne ndaje bu sañoon bu sañoon nee na maanaam duñ ko def duñu ko def li mu bëggoon mooy. li mu bëggoon mooy. mën nañoo togg xam ne. mën nañoo lay doon. togg bu sell lay lay doon. te benn jafe-jafe du li waral sëñ Saliou nag daan wax loolu mu wax. loolu bokk na ci xalaati sëriñ bi. moom sëñ mag moo tax bi ñu ko leeralee sëriñ sëriñ bii. mu wax na loolu kat na. ndax bu la woo nañ fi ñaar nit ñetti nit. ndax bu fekkee ne woo nañ fi ñaar nit wala ndax li wér ba wóor mooy kër gi ñaar fukki cin moo fi war a tàkk mun a kër gi moom ñaar fukki cin moo fi war a tàkk cin lu ne lu mu néew néew dana am ñeenti nit ba juróomi nit mun a cin lu ne lu mu néew néew dana am ñeenti nit wala juróomi nit loolu nag kon léegi mbooloo day daje foofu mun a loolu nag mbooloo day daal daje te man nit mën naa jógee Touba daane damay seeti diw sàngam ca cin la te nit mën naa jógee Touba ñoo ne day seeti kenn ci cin mu jógee fii Mbàkke ne damay seeti diw baa mu jógee Mbàkke ñoo bokk jotaay bi bu yàggee bu boobaa mbooloo daje mun a bu yàggee nag mbooloo dafi daal daje kon nag bu boobaa bu baaraam daf ñuy yomb. kon bu boobaa wax lu jëm ci sëñ bi da ci daal li nga xamee ne moom la ñu mën a mu doon loo xam ne bu mu ko defee. ne li ne moom la ñu maa def te mu doon loo xam ne bu ñu ko defee. danañ ko liggéey te duñu sonn. danañ ko liggéey te duñu wax loo xam ne bokkul ak na war a demee. te kenn wax lenn loo xam ne waroon na ko wax bu boobaa sëñ bi nee nañu defe ko su boobaa sëñ bi nee nañu defe ko noonu li tax mu ne kenn ku ne li mu tax mu ne kenn ku ne li mu bëggoon nga dem sa kër maanaam togge ko foofu na nga dem sa kër togge ko foofu ba noppi nag yow yaay nag xool nooy waxee sa sa sa mbooloo ba noppi yow yaay xool na ngay wax sa mbooloo bu boobaa li nga bëgg di ko mën a am bu boobaa li nga bëgg da nga ko mën a am ndax mbooloo bu ñëwee fii moom ndax mbooloo bu ñëwee fii moom wàññi leen du yomb wañi len dootul yomb ndax ma ngi dem keur señ bi mom ndax ma ngi dem keur señ bi do fa dem mom fa dem kenn du ko wax kenn kenn ku ne bu sa kon kenn ku ne bu man nga ko wax ah di man nga ko wax ko ci ni la ko señ bi waxé su ñay da nga leen di su dañ bañ aaru ñay siyaare mom kenn du leen aaye ñay siyaare nag kenn doon aaye moom bi nak mo mu ne motax señ bi waxon ne dafa dafa lenn dong moo sopp ci li nga ne moom la ñuy def. lenn rek moo soppeeku ci li nga xam ne moom la ñuy def. mooy toog bi xam ne moom lañ doon toggee fii. mooy toog bi ñu doon toggee kenn ku ne dafay defee fa nga xam ne moom moo la gën a. kenn ne dafa la gën a jubu. waxtu wi tamit dafa waxoon ne deux heures waxtu daa waxoon ne deux heures pile. fexe ba añ yi ñëw teew. nañ fexe ba lépp ñëw teew. kenn ku ne fa nga ne. ba nga xam ne toog na ba noppi. ba nga xam ne toog nga ba noppi. kilifa ga nga xam ne moom moo leen jiite. kilifa ga nga xam ne moo leen jiite. ñaanal ñaar nit mbaa ñett nit ña koy yem. ñaanal ñaar mbaa ñett ña ko mën a yem. su fekkee ñu mën indi ko fii. ko defee ñu mën ko indi fii sëriñ bi. ñi nga xam ne ñoom ñoo ko daan dalal. ña nga xam ne ñoo ko daan dalal. ñi nga xam ne ñoom ñoo ko daan yóbbu muy kilifa yooyu sëñ bi tudd. ña nga xam ne ñoo ko daan yóbbu muy kilifa yooyu sëñ Saliou tudd. ma bokk su defee bu boobaa ñoom ñoom ñooy recevoir bool yi. su boobaa boobaa nag ñoom ñooy jël bool yi fii. ñi nga xam ne ñoom ñooy dajale bool yi fii tamit. ñi nga xam ne ñoo dajale bool yi fii tamit. lu mu bëri bëri wër ko mën a weesu ñaar lu mu bëri bëri du weesu ñaar fukki nit. bu boobaa. bu ko defee su boobaa. yóbbuñu bi tamit. tamit. am aw yoon. am aw yoon. ndax même sëñ Cheikh la fay dafa maa wax ne ma. mu ne même sëñ Cheikh dafa waxoon ne. mbooloo mi ndax oto bëri moom moo ko gën a. te oto yu na même séddale mun a daa séddale. nee bëgg ñu teg ci. oto bëgg ñu teg ci. bëggul ñu yenu ko. bëggul ñu yenu ko. su defee am na liste boo xam dina ko joxe. su yóbbu ñu na fañ ko war a yóbbu ko fa li nga xam ne moo jëm Njaareem. li nga xam ne moo jëm Njaareem. nee na dana mu oto boo xam ne tamit day nekk Njaareem. mun nañu la oto boo xam ne moo nekk Njaareem. su defee ñi nekk fii bu ñu tegee oto bi. su ñu nekk fii bu ñu ko tegee ci oto yi. su defee bu àggee foofu ñu nekk ko ci oto mbaar. su àggee foofu ñu def oto ba fa ne. su defee mu mën a mën a séddale. mu mën koo séddale waa Njaareem loolu moom sëñ Cheikh Lappé moom wax ne noonu la bëggoon sax séddale. mu ne loolu sëñ Cheikh loolu la ko xam noonu la ko bëggee woon. la ca tegu nag mooy. moo la ca tegu mooy. li ci des suñu liggéey la. li des suñu liggéey la. ndax ginnaaw kumte. ginnaaw kumte. la ci farata mooy boole nga xam ne mooy dem. la ci farata mooy boole nga xam ñooy dem. li nga xam ne moom nan naan toggee fii noonu rek lañ koy def. li nga xam ne moom nan naan toggee fii moom noonu rek lañ koy def. li fi jóge ci ginaar dana dem. li fi jóge ci ginaar dana dem. moom la koy toggal lépp rek daa dem. ak matt mi ak matt mi lépp. ak la nga xam ne moom moo ci war a ànd lépp. ak la ci war a ànd lépp.

oto yi ñëw wàcce ko fii ñu teg ko oto yi ñëw wàcce ko fii daal di ñaanu daal di dem ñi nga xam ne tamit yàlla dogal na mu ne ñi nga xam ne yàlla dogal na yoruñu ay cin yoruñu ay cin sëriñ bi nawaa seen pas-pas amul lenn lu mu ciy wàññi mu ne sëriñ bi naw na seen pas-pas amul lenn lu mu ci wàññi moom dafay wax ne kenn ku ne na nga daan doxale noonu ngay doxale waat day wax ne kenn ku ne na nga daan doxale rek na nga ñu doxee waat maanaam sa liggéey maanaam sa liggéey waxtu bu waree ñëw waxtu bu waree ñëw na nga seet ay nit ñu yem ñu ko war a mën a indi na nga seet ay nit ñu yiw ñu ko war a indi bu dee ci sëriñ bi la bu dee ci sëriñ bi la wala ci kenn koo xam ne sa ci Cheikh Fall wala kenn ko mooy sa bunt yoon dem ci moom ziaré nga dem ci moom ziaré ko loolu la sëriñ bi waxoon loolu la sëriñ bi waxoon na noonu la bëgg ñu doxee ko ni waaye bu bëggee ne dañ fi taal ay tig kenn ko rek fi taal waaye mu bëggee ne ko taalee fi ni ko daan taalee bu yàggee tamit lan doon bañ dina am bu yàggee lan doon lan doon bañ dañu xaar ne dina am te ba nga xam ne sa kilifa la naan di sa kilifa ba nga la sa kilifa ko da ci nañ at mi lay doon itam at rek lay doon bu nañ def bu danoon daan def ñaareel bi ci tegu mooy mu ne la ci tegu mooy mooy kumte yi mooy kumte yi kumte yi gis nañ ko daan doxalee mu ne kumte yi gis nañ ni ñu ko daan doxalee sëriñ bi dafa ne dafa am ci wax ne daa lu bëri loo xam dana ko ci teggi ndax jamono moo ko laaj ndax jamono moo ko laaj ndax nee na kumte ndax nee na kum tey mu ne kenn ku ne daan nga lewatal lu mel ni na nag loolu noonu mu ne loolu noonu nag jamono laaju ko ndax mbooloo lay indi ndax mbooloo lay indi la nga xamee ne moom a rek la nga xam ne moom nga war a def nee bu booba su boobaa day jar nee na nee na cin lu ne day sàkk ñu ko ñaari toftal mu ne cin ne day sàkk ñu ko ñaari toftal bu doonee loo xam ne ne bu doonee loo xam ne day dund nag ñu dajale ko nag indi ko buñ ko dee pour ñu yëbul ko waaye dafa wax ne maanaam ci lu ne waaye dafa wax ne ci lu ne li muy ñu def ko li muy ñu def ko ay toftal ay toftal yi nga la daan ànd moo toftal yi daa ànd su defee ba jamono soppeeku nag bu dee ba jamono soppeeku nag buñ mënee delluwaat ba téeméer sax buñ mënee dellu ba téeméer sax def ko li nga xam ne jëm ci wàllu fur mu ne la nga xam ne jëm ci wàllu fur dafa wax ne dem ak dikk bi yombut wax ne dem ak dikk bi dafa wax ne dafa tamit mu daan ci lu ne ci lu ne carton carton bu bu ko def bu ko def carton carton orange pour banana. lu ci nekk kenn carton rek ca lu daa àndal. li mu nekk bu mu ne bu fekkee ci li naan la bu mu weesu juróom. nee bu boobaa. nee bu naa bañ a te fa war dem dana fa dem. te ne bu jàllee nag su boobaa. li maa def da def ko ci lu baax. moo soppeeku. looloo tax bëggoon ko nii. loolu la sëñ ñi féete Touba daal. bu ñu xëyee jël si liñ daan si ñu féete Mbàkke bu ñu xëysee si liñ si bu dee bu bu dee kumte yi loolu noonu la ko nag jamono ju ne si ñaari waxtu la ko bëgg ñu indi ñu indi dee ñu mën koo jébbale dem dem Touba dem Touba lay dem Njaareem dem Njaareem su defee a a ñu mën a teel a na

jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati dafa wax ne képp koo xam ne bëgg nga koy siyaar sama war nga ñëw na nga ñëw na nga daan ñëw ci moom waaw sëñ baa ngi ñaan sëñ baa ngi la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله Faly borom baax la